fëgg jaay bi moo tax damay bañ ñu jël temps bi. fëgg jaay moo tax ñuy wax marché Colobane. tout à fait. parce que suñu papa yi nga xam ne ay bool bool la ñu. Mm-hmm. ñii nekk Touba ñii nekk Diourbel. Mm-hmm. ñoo ñëw doon fa liggéey def fa baas mm-hmm. loolu di law. mun naa ne amul. ku fa jaarul Colobane ci fëgg jaay boobu. dañuy fëgg rek jaay dañuy tekki ba fëgg ni jaay. patron yi kilifa yi yeeg ministre ku ne jaar fa. ñu ci bëree léegi lan moo tax léegi Colobane léegi fëgg jaay bi ci boppam mu meloon noonu léegi lan moo tax yéen ñi nga xam ne du mën a yow si fëgg jaay bi nga ne mais ñi nekk Colobane yoroon fëgg jaay bi lan moo tax ñoom ñu seetaan ba ay étranger ñëw. non seetaanuñu. Ah. li tax seetaanuñu ñoom ba léegi ñu ngi koy def. mais dafa toll ak état bi daf leen jàppalewul ci li ma jàpp. Hmm. waaw parce que sa doomu réew la nga koy ñag jàppale ko taxaw ko. boo ñëpp a ah. koy ah, boo gisee ay ndaw yu bëgg a liggéey gis ay mag yu bëgg liggéey. Mm-hmm. di jëli ay conteneur bitim réew. Mm-hmm. di ci def cent millions cent cinq millions deux cent millions. Mm-hmm. kooku da ko war a ëppale jàppale ko. jàppale étranger bi mooy gën sax jàppale sénégalais bi. Mm. parce que tey bal bi bu ñuy demee boo koy wax fëgg jaay bi naar taxul woon. Mm. chinois taxul woon. Mm-hmm. indien taxul woon. Mm-hmm. ñun africains yi ak sénégalais yi. Mm-hmm. suñ bool bool yi di jël seen alal jaay seen lépp dem ba bitim réew jënd fa seen i balu fukki jaay indi ko fi di ko jaay. indien bu demee ba dugg ci chinois dugg ci c'est parce que état bi moo leen dooleel jox leen faveur. bañ jël ko ci ñun. waaw que ñoom bañ hmm? jël ko ci ñun jën bi. comme li ngay wax. ne kër yi fa nekkoon yëpp c'est kër yu bëri indien jël nañ leen ñu dañ leen di doo fa dugg sénégalais bi doo fa liggéey doo fa dugg xamoo lu nekk ci biir. amul hmm. vérification amul dara. dëgg ngay romb gis doo gis dara tableau ngay gis. Hmm. ñaata maison Colobane noonu la ñuy hmm. mu leer la ni comme li ngay wax dafa am mais teewul ñoom it ña nga ci nekk di ci def lañu ñu mën ak la ñu mënul. tey bu demee ba. marché Colobane am tour am visibilité fëgg jaay bi moo tax ak tabule yi. Mm-hmm. parce que centre commercial bi ngay gis tablé yi ñoo ko jur. Mm-hmm. centre commercial bi yàggul.